royukaay lañu ñii ñu jar a bàyyi xel lañu ñii ñu jar ñaanal lañu ñu yàgg fi lool te ànd ak wér bi ñu tette ba ci kanam ndax soxla nañ leen man nag damay wax toujours rek làmb moom amatuma lu ma ciy tuur lu ne def naa ko waaw dama fi ne rek parce que su ma rakk ñoo fi ne te nekk ci réew te amoo njëriñ ci réew mi aussi bu lay woo nga génn ko dem defi leneen ndax euh, la ñu yor yéene nañ ko xale yi Euh, yaakaar naa ni may tëgg commencé tëgg làmb yaakaar naa gii commencé wu doon donc loolu yàgg na xam nga ku tëgg Mor Nguer yaakaar naa ne yàgg nga tëgg làmb hmm. waaw donc euh, pour ñëwaat rek ci mbir mi di gërëm aussi Moustapha Guèye ñuy toog di aussi koo xamante ne responsable la ndax wax dëgg yàlla bu dëgg jotee rek da koy wax hmm. bu dee ci man la bu dee ci keneen la moom dëgg moom du ko bàyyi fa mu ko fekk fa la koy bàyyi moom lu mu gëm rek lay wax moo tax aussi ma jàpp ko jàpp aussi waa écurie Fass yëpp ñoom Malick Gueye président Abbas moo tax jataay bi bettu ma te am naa mbégte lool parce que la ma doon nëbët ci bés bi xam naa ne dinañ ci egg jàmm ak salaam donc daal Gris Bordeaux li mu koy wax mooy alhamdulilah rabbil alamin ndax nit aussi boo nekkee ci erreur reconnaître ko loolu rek grandeur donc tey wale na grandeur équipe de Fass wane nañu grandeur donc lii mooy Sénégal Sénégal lii la amul lu waxtaan munta rek donc lii dama koy rafetlu di ci am mbégte mu rëy rëy di ñaan aussi lii ñu mëbat di ci dem parce que effectivement keroog ñu bari xëy na absence bu Gris Bordeaux la ñu gën a wax mais la yóbbu woon tey mooy plateforme boo xamante ne dañ koy teg ba nga xamante ne Gris Bordeaux Balla Gaye ëllëg ak si biir dinañ si ak écurie yeeg ñëpp dinañu mën a jëriñu ci plateforme boobu parce que plateforme boobu dañ ko gëm te dañu gëm ne loolu moo mën a suqali làmb jamono yi ñu nekk. donc euh, ñu ngi ciy liggéey te lii gën na dal sama xel ndax côté Balla Gaye dëgg yàlla ñoom ñu ngi liggéey liggéey boo xamante ne tegu na ci yoon euh, ñu ngi jaar ak man ci yoon ci contrat yi euh, ni ko Mbaye Guèye waxee léegi. nee na aussi lii dootul amati te man xam naa ne dootul amati parce que ñun sax Luc Nicolaï and co ñu nangu loolu parce que dinañu xam yoon bi ñuy jaar léegi ba lépp tegu ci yoon parce que làmb aussi foog mu changé te mbër yi aussi pare nañu pour accompagner ci plateforme boobu te plateforme boobu quand même euh, dafa nekk loo xamante ne xëy na euh, lu bees la donc dafa laaj liggéey bu wóor bu wér te ñu ngi ciy liggéey ak ay kilifa yu nekk Canada Russie ak euh, France donc ñu ngi ci liggéey te gëm naa ne mbër yi sax mën nañ ci bénéficier wu ëpp sax ba nga xamante ne xëy na dañ ko seqoon ak ñoom ci cachet donc ils ont tout intérêt à à collaborer ñu nekk benn pour événement bi réussir mu doon réussitu làmb réussitu journaliste yi réussitu amateur yi réussitu peuple sénégalais parce que làmb aussi c'est un facteur de régulation donc luy réguler ñun ñëpp dañ ci war a xar suñu tànk tubéy pour mu egg fi mu war a egg donc ci loolu lañu taxaw te gëm nañu ci kàttanu suñu borom dina am parce que euh, lépp luñ ciy def xol lañ koy defee set bu leer bu yàlla aussi du seetaan coono yàlla day fay coono te coono biñ ciy daj dina ko fay ñëpp ñu gis ci suñu bopp ndax bu amee problème yow yéen ñii journaliste yi ngeen am problème làmb bu amee problème tey euh, mbër yi am problème làmb bu amee problème xol yi dootul neex ndax yooyu di am yu mag yi day defal seen xol pendant un mois avant un mois après ñu di ci commentaire donc loolu lu jar a bàyyi xel di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal ñëpp Sénégal bi yëpp jàmm di encore une fois remercier écurie Fass jiital nag remerciement bi ci sama papa ñi toog di may Gueye ndax tey wane na kilifteef bu ma sëkk te lii lañ doon xaar ci moom te moom la ñu xam ci moom itam donc tey xol sedd na féex nañu am nañu taw féex lii rek mooy Sénégal léegi nag nañu jublu ci liggéey bi en avant vers la révolution de la lutte qui la nouvelle plateforme énumérée sur gris-bordeaux-balla-gaye.com ok. léegi nag dañuy ñaan ni bu ñu xewatee rek. dañ ko yëg. incha allah dañ ko yëg. incha allah ak travers Moussa Diagne ñu allah bi ci mat ci am rek dinañ dinañ askan wi si am. incha allah.